Euh, seen dars ruuxul adab ñu ngi yemoon fi bàyyi doon wax ne warda cheyqaka wala abkaaka lakinnahu lil xayri qad hadaaka pour ñi nga xam ne fekkewuñ woon dars bi wees ak ñi nga xam ne xamuñu ruuxul adab wala ñu ngi koy dégg ruhul adab mooy téere bi nga xam ne Cheikh Ibrahima moom la njëkk a taalif ci dundam ci bi muy am ñaar fukki at ak ñaar ñii ne nañ déedéet ñaar fukki at ak benn waaye daal ba koy taalif booba wala bam koy bind booba tu tànk la maanaam ndaw la mooy li leen doon wax keroog ci ne jeunesse dafa am solo ndax à l'âge de vingt et vingt néew na ko ci bind téere surtout jamono jooju te bind téere ci langue arabe nekkul woon lu yomb ndax xeetu xam-xam yi nga war a dajale pour bindi téere yow mi am ñaar fukki at ak benn boo àndul ak ndimbalub yàlla boo nekkul boroom jamaano mënuloo ko surtout nag ci anam bi nga xamee ne moom la Cheikh Ibrahima taalife Ruhul Adab ndax ay abiyat la ko def ay way la ko def te bàyyi yàlla daf ko may boo gisee téere mi neex mokkal moom li yi di bind moom daf koy way ba yow loo gàtt-gàtt xel loo naqari naqari xel ba mel ni man dina yomb ci yow pour nga mën ko dégg waaye nag dafay wane itamit ne bàyyi mooy boroom jamaano li tax loolu mooy xam-xam yu riis yi nga xam ne Cheikh Ibrahima wax na ko ci ba téere bi fépp fu aw ci jamono jooju ci mag ñi fi nekkoon ku gis téere bi rek da naan gongo ndax papaam maam alaaji abdullahi ñas kenn rawu ko woon ci jamaanom bal bàyyil moo nekkoon xalifa cheikhu tijaani radiallahu anhu punkalu tijaan yi fi nekkoon ci jamaanom moom maam alaaji abdullahi ñiñ fi daan coow mom dong mo fi dagge itim dem be fas ziyaare ji maulana Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu ndax mom nee na fi ñay wi deewee mom fofu lay jilé mais kenn du ko sédd fofu itam la xamé né ci biir njabotam borom faydu dana ñew xista boobu duñ ci dugg wala duñ ci suri waaye pour xamal la ne maam alaaji abdoulaye mi reconnaître téere baay bii rek doyoon na ci ñu xam ne Cheikh Ibrahima ponkal la parce que baayam reconnaître na ruuxul adab boroom xam-xamu jamaano itam ñi ko jot liir ñëpp nangu nañ ne téere bi téere bu mel ni moom masta xam te mboolem téere yi baay bind itam non la mel Kashifil Albas mom la toje nigeria Kashifil Albas mi ngeen di deg ñu tuddee ko suñu groupe bi yaa ngi dégg la toje nigeria dégg nga wax ji limu tag yonti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, parce que bay waxam yëpp ñetti yi la waxam yëpp ci ñetti la ko teunk yàlla yónnantu Cheikh Tidiane yàlla yónnantu Cheikh Tidiane li mu woy leneen li mu jàngale leneen ci yónnantu jàngale ko ci Cheikh Tidiane yi nit dana dund ba dee dootu ko jàngal nañu Cheikh Tidiane ba yow booy jàng Cheikh Tidiane dangay dem ba jàkkaarloog Cheikh Tidiane te noonu la ko defee ci yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu anhu téere bi nag war na képp kuy taalibe bàyyi nga mokkal ko nga xam ko ruuxul ëdëb la bàyyi wax tegginub rooxo bi kon bàyyi mu ngi doon préparé rooxu ba ci ba muy am ñaar fukki at ak benn mu ngi signalé boppam moom la papaam xamoon moo tax ñu ne bi maam Alaaji Abdoulaye jàngee téere bi rek dafa wax nag ajal bi mat na lim doon laam-laamee yépp far na feeñ ndax Baay dafa am lu mu junj ñu ne ko sa téere bi noo koy tuddee mu ne ruuxul adab teggin na bu rooxo bi xam ngeen kay rooxo ci lum nekkul loola du fonctionné ci zahir moo xam rooxo bu zahir gi ak ci baat mi ku fi faddu sax dañ naan ruuxu bi dem na aras ruuxu bi wàdd na parce que ruuxu bi nekkatu fa ndeke bàyyi tabax na ruuxu bi teg ko indi ruuxu bi teg ko xam ne na fi mu toll ni jëmm rek a desati mu ngi wone ne qad tamma fatihi inda mahdi wa qad anat jamiu rijalul ghaybi tahta qadaay man bàyyi am naa fatuhu ba may nekk ci berceau pas berceau bu zahir bi déedéet bee sob baatinu bi bi yàlla di wax ne kunt xablal kunt balaa kunt balaa kunt berso boobu la Cheikh Ibrahima di wax ne amee naa fa fatuhu mboolem góoru xaybu yi yëpp ñëw nañ sukk ci sama ron mboolem la wax ah jamiu rijaalul xaybi la baay jamiu rijalul xaybi taxta xadaay kooku est-ce que Cheikh Ibra mii la Cheikh Ibra Asta la moo tax nag lii waa ji waxoon keroog ne yàlla taalibe baay la ah neex naa dégg de neex naa dégg parce baay rahmatullahi boo ko bëggee ñëwal ci baay Eh, maghfiratun boo ko bëggee ñëwal ci baay rahmaniyatullahi boo ko bëggee ñëwal ci baay baabullahi boo ko bëggee ñëwal ci baay alquran am na fu muy wax ne am na bunt boo xam ne ku ko wan gannaaw dugg safara bunt boobu moy Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu buntu boobu mooy baay ku ko wan gannaaw rek dugg safara il faut que nit ñi yeewu il faut ñu sérieux aussi réer gi ñu nekkee dañ ko war a ba parce que bàyyi daggal nañu kiiraay bi bàyyi daggal nañu kiiraay yi daggal nañu ko ba leeralal ñu ko ni alquran waxee woon ne fa ay namaatu wàllu fa sàmm wajhullaahi fu ngeen jublu fu ngeen jàkkaarloo fu ngeen xool fu ngeen woon gannaaw man yàlla sama jëmm ji ngeen di jàkkaarloo misaal bi jël ko ci ci ci glace dem ba si yàlla na fi yàgg te wér glace boo ko gisee nga ne galaas la lu tax mu nekk galaas bàyyi dem ba nee na parce que ndox la woon ndox la woon kiiraay bi lan la mbuus bi mbuus est neexul dagg xam kay mooy hijaabul azam bi te moom sax ndeke yàlla la galaas bi buy ngande ngandalu teg ko ci tàngoor bi nga xool léegi mu seey nekk lam nekkoon njëlbeenam ndox la mujjam ndox la yàlla moo feeñ moo nëbbu moo njëkk moo mujj moo feeñ moo nëbb moo njëkk moo mujj glace boobu nag yóbbu ko ci baay mbuus mu ëmb ko mu tàngal ko seeyal ko ba mu seey bu seeyee nekk lam nekkoon saa yu seeyee nekk lam nekkoon moo tax il faut nit ñi yeewu lu mel ni Cheikh Ibrahima du ko indi nit ñi di ko cof nañ leen wax dëgg nañ leen wax dëgg bàyyi yàlla lay wane bàyyi yàlla lay wane ki lay nax naan la bàyyi jinne lay wane da la bàyyi wane na lu loolu yàlla mu ne ana baatinu man maa nëbb kon balaa nga àgg ci yàlla ngay jaar ci jinne kon gis jinne xéemewul gis yàlla sax xéemewul gis lu dul yàlla moo xéeme gis yàlla yéemewul gis lu dul yàlla moo yéeme laa ilaha illallah espace la amul ah espace espace la amul espace la amul espace bu mu nekkut la amul normalement nit ku nekk boo xeere da ngaa war a xam yàlla nit ku nekk boo xëyee danga ngaa war ci yàlla nit ku nekk boo xëyee danga ngaa war a gis yàlla parce que mu ci ginnaaw nekk nekk ci ginnaaw am nekk ci ginnaaw nëbb nekk ci ginnaaw feeñ nekk ci ginnaaw njëkk ak mujj ki njëkk mujj feeñ nëbb wax dëgg yàlla kooku mu ngi fépp yow il faut mu am foo féetee boo njëkku danga mujj boo nëbbul da ngaa feeñ kon il fa nga am foo ne te foo ne mu nga fa moo tax mu ne fa ay na maa tuwallu fa ay na maa tuwallu loolu la bàyyi indi ah indiwu fi ay xaatim à l'époque dañ doon wax ne bàyyi yuuru xaj ay yuuru xaj lay nandal ay taalibeem moo tax bu guddee ñi ñiy yuux rek ma ne kon ndaw xanaa xaj ka desatu fii ci àddina bi nga dem Nigéria fekk fa ñaata million taalibe Sénégal gu ndaw gi ñaata ñaata ñaata junni taalibe ñoo fi ne ñoom ñëpp bàyyi da leen nandal yuuru xaj affaire bi du loolu du loolu ñu naan dañ leen di jox ay turu jinne ñu koy wirda ñuy gis ay jinne ay jinne jinne mooy tarbiyu baay jinne moo soxla baay parce que baay indiwul jinne soxlaalul jinne jinne ko soxla baay yàlla la indi yaa ngi dégg wax ji baay loolu la andi indiwul leneen moo tax may la sànq bàyyi mooy yërmande yàlla bi bi ñu ko yàlla mayee maye mënatu ñoo may keneen ku ko gën a rëy ndax li jafe woon bàyyi ko fi andi dindi kiiraay yi te kenn ku ci nekk bés boo reppee ba saxal leneen lu dul yàlla bu yomal xiyaamee dañ la koy sëf boo amul sareetu mbaam na xaw ma noo def bo amul seeti fas xawma noy def bo amul auto bagage xawma noy def ku fi bokalé yàlla nekkal fi lenen lu moy mom danañ ko jël sëfal lako nga gàddu ko di dox ak mom ci biir allah ci biir ci ci ci ci ci ci saxaraa yu mal xiyaam loolu mooy fi nga jëm dara bax kon nak il faut ñu sérieux tay waxante dekk ben way fan yi dafa wax ne yaakaaroon naa ne Sénégal am ay borom xel a ngi fi. ay boromi xel a ngi fi ndeke Sénégal amul ay boromi xel ko fi mu ko waxee waxeewu ma foofu de waaye fi ma bëgg ñu xamee mooy lam wax dëgg la ay boromi xel nekkuñu fi parce que ay boromi xel buñ fi nekkoon duñ fi bàyyi Cheikh Ibrahima ak lim indi nga xam ne mu ngi lijjanti mboolem problème yi te problème bi gën a rëy ci problème yi mooy problème mu shirk Sénégal problème shirk lañ am addina bi si jëmmi boppam problème shirk lañ am li leen ko yóbbu yóbbee nag mooy wan ginnaaw gi ñu wan Cheikh Ibrahima te Baye waxoon na ne ki gën a tuuti ci samay toppee mucc nañ ci bokkaale mooy li ma wax sànq ne alquran wax na ne am na benn buntu ku ko wan gannaaw safara nga jëm buntu boobu mooy Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu moom nag moo taalif téere bii yaa ngi dégg tuddee ko ruuxul adab tegginu yaa ngi dégg roxo bi si ñaar fukki atam ak benn moo tax ma ne ndaw daal dëgg-dëgg muy lépp nit ku nekk daf ko war a sàmm fexe ci góorgóorlu am ci xam-xam waaye jaamu ci boromam Baay waxoon nañu ci abiyaat yi wees ne yow taalibe bi bunt bii ci taalibe lay wax walla ba abiyaat yi ci taalibe lay wax mu ne wa kun maa cheyqi dafa njëkk a wax ne fa laysa lil muridi xayru za alwaliyi maa rasuli summal mawlaahul ali mu ne taalibi amut lu dul ñett yi mu ne yàlla ak yonent ak borom bi tabaraka wa taala déedéet alwali mooy kilifa bi kilifa bi mooy sëriñ bi kilifa bi mooy sëriñ bi mu ne yow taalibe bi amuloo lu dul sëriñ sa sëriñ amuloo lu ma yontu bi sallallahu alayhi amuloo lu dul sa borom tabaraka wa taala sëriñ bi nag bàyyi bu koy wax fii Cheikh Tidiane la si jublu radiyallahu anhu parce que Cheikh mooy sëriñu sëriñ si آه، آه، قدماي هاتايا على رقبة كل ولي من لدن آدم إلى نفق في السوري شيخ يعني ما وخ لولو كوي ولي الله سما نياري نغوي نيوم تي ساكاو ندوغ ساكاو دوق بفتي بي ديوال منو لو فخه فخه بفيت مكاو شيخ جان دي نفلال توتي موم موي عيد الولايه moom mooy yan bu urahma moom mooy ussul wasaili moom Cheikh Jaan radiallahu anhu aynul wilaaya mooy jëmmab wilaaya nubuwa moo am ak wilaaya aynul nubuwatu moom yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que kuy yonentu rek ci géeju yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam foofu nga naanee kuy yónnantu rek ak koo mën a doon foofu nga naane parce que yónnantoo tax nga am li nga am bu géej googu jeexee géeju wilaaya moo si topp mooy euh, am na fu ko fu ko alquran di waxee ne baxarey ni laa yaltaqiyaani ñaari géej yoo xam ne dañoo roofaloo boo xuusee ci géej gi ba mu jeex rek dangay dugg si beneen géej gi beneen géej googu nag mooy géeju wilaaya bi nu bu wa jeexee géeju wilaaya moom moo fi des jëm géej gi nag Cheikhu Tidiane la radiyallahu anhu mbooleem wali yàlla yi ci biiram la ñuy xuus di naan moo tax mu wax ne ku fi wali yàlla rek man maa la nandal ku fii wali yàlla rek ci man nga naanee waaye moom mooy yan bu u rahma Cheikhu Tidiane mooy yan bu u rahma yenentu mooy jëmab yërmande waaye balluwaayu yërmande Cheikh Tidiane la yenentu mooy jëmab yërmande waaye Cheikh Tidiane mooy balluwaayu yërmande yaa ngi dégg maanaam fii yërmande bi di jaar fi ndox mi di jaar pour accès si jaam ko koy Cheikh Tidiane radiyallahu waaye itam moom mooy aslul wasaa'il ku bëgg a jokk il foog dangay jaar ci Cheikhu Tidiane moo taxoon bàyyi def jël ko def ko muy imaamam moo taxoon buñ ko laajee ñaata imaam nga mun ne ñaar yonent Yàlla Muhammad ak Cheikh Tidiane radiyallahu anhu beneen bi Cheikh Tidiane mooy barzaqul aala bayna nubuwa wal wilaaya fii ñun buñ ko déggee dañuy wax ne mooy ku dee bañ suul ko waaw barzaq la parce que fii la suul moo dox sa digganteeg bés penc waaye nag Cheikh Yaani moom mooy barzakul aala barzak bii dëgg la mais barzak bi ko gën a kowe Cheikh Tidiane la lu tax parce que moom moo nekk diggante wa ak wilaya lépp loo xam ne dafay jóge ci géeju nubuwa ci yonent Yàlla Muhammad pour ñoo wàcc ci jaam yi ci ñeneen yeneen wali yàlla yi Cheikh Tidiane foofu lay jaar ba mu xool ko lu mu valider pour mu àgg ci yeneen góoru yàlla yi loolu moom mooy jàll kuy demaat aussi di wut demande ci yonent bi sallallahu alayhi wa kulli haal sa demande dafay jaar ci Cheikh Tidiane su ko bàyyee mu jàll bu ci defee intervention mu gën a gaaw xam nga ne ku Cheikh Ibrahima jël def la ngay sëriñam kooku du ko tuuti parce que Cheikh Ibrahima Niass amoon na capacité sos tariqaam amoon na compétence su sos tariqaam te loolu amoon inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu amoon di nga gis leneen waaye wa ilallahi bi iznihi wa sirajan muniran yonentu sallallahu alayhi wa sallam mooy séddale Baay wax na ko nee na euh, li tax li tax ku ma liggéeyal wala nga bëgg ma gis ma bëgg ma maag yooyu wa man yuhibbunii wa man yaraanii fii jannatil xuldi bilaa buhtaanin iz annanii xalifatu tijaani mawhibatan min ahmad al adnaani su gisee maman li ma man ba ki ba nekk xalifaab cheikhu tijaani ba ku ma gis dugg aljana ku bëgg dugg aljanaa loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ma ko may waaye nag damay wax chaque jour ne bu ñuy wax yonent bi bu fi kenn nekk di xaatir ay Muhammad ibnu Abdullahi ibnu Abdul Muttalib ibnu kaza ibnu kaza tëdët na gën a sori waaye bu ñuy wax Cheikh Tidiane itam bu fi kenn nekk naan faas ak ay ñul maadeeg yu kenn xamul déedéet mais bu ñuy wax Cheikh Ibrahima itam dëgg-dëgg jarut ñu naan Asta da wax ji xaatir leen ci loolu Cheikh Ibrahima huwa sirrul akbar radiyallahu anhu Cheikh Tidiane moomu nag euh, moom la Cheikh Ibrahima di tudd fii ne nit amul lu may sëriñam sëriñ boobu mooy Cheikh Tidiane ak yonent bi sallallahu ak yàlla léegi nag Cheikh Tidiane moom dafa dafa bëri li tax mu bëri mooy képp ku la jokkale ak Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane la ku la jokkale ak Cheikh Ibrahima Cheikh Ibrahima la su ma waxee ku la jokkale ak Cheikh Tidiane mooy li Baay wax ne muaziman li ahlihi jamian laa siyamal xaasatu kun muti am fu nit nekkee di Tidiane ka ko taxaa nekk Tidiane ka ko may wér de Tidiane kooku mooy sa Cheikhu Tidiane bu dee taalibe Baay nga ki tax yow nga am tarixa bi ba am faydu bi kooku mooy sa Cheikh Tidiane ba la joxee tarixa mooy sa Cheikh Tidiane ba la joxee faydu mooy sa Cheikh Ibrahima Niass ba la xamalee yàlla mooy sa Cheikh Ibrahima Niass moo tax nag kii moom ngay xoolee Cheikh Tidiane ci tarixa Tidiane moom ngay xoolee Cheikh Ibrahima ci faydu comme nag Baye benn benn sëriñ la am muy Cheikh Tidiane moo tax Cheikh Tidiane la fi junj radiyallahu anhuma topp ci na yonent bi sallallahu nag am yonent te jaaroo fenn il faut nga jaar ci Cheikh Tidiane ba pare mënoo am yàlla itam te jaaroo ci yonent bi sallallahu alayhi moo tax Baay wax la ne maa daama gayruhum bi qalbin laa yanaalu maarifatal mawla aqulu bi irtijaali képp koo xam ne sa xol bi Cheikh Tidiane nekku ci yonent bi nekku ci yàlla nekku ci yow loo xam mukk yàlla il faut sa xol bi moom danga bëgg Cheikh Tidiane da nga bëgg yonent bi da bëgg yàlla ñun nag loolu mu wàcc nañu ndax Baay wax nañu ne man man raama eh, fistiyaaqi nabiyina faqad raama amran mustahalan muharraman képp koo xam ne yaa ngi sàkku gën ma bëgg yonent bi sallallahu alayhi sallam yaa ngi sàkku lu xaraam lu manta nekk itam kon ñu lu ñuy wut lu ñuy sàkku bëgg Cheikh Ibrahima ci dëgg bàyyi wax na waman yuhibbu nii wax naa ko ba léegi waman yaraa nii waaye nag am na feneen fu muy wax ne am na ñoo xamante ne gis nañ ma gis nañ ma am na ñoo xam ne gis nañ ma waaye gisuñu am na ñoo xamee ne gisuñu ma waaye gis nañ ma da ñetti wax yi Baay dafa wax ne am na ñooñ gis nañ ma waaw gis nañ ma am na ñooñ gis nañ ma waaye gisuñu ma na gisuñu ma te gis nañ ma moom la wax ne waman yuhibbu nii waman yaraani kon am na ñoo xam ne gis nañu baay ba pare bëgg ko ñooñu ñooy ñi gis baay gis baay am ñoo xamee ne gis nañu baay te bëgguñu baay ñooñu la baay wax ne gis nañ ma te gisuñu ma am ñoo xamee ne gisuñu baay te gis nañ baay ñooñu la ñooñu ñooy ñi nga xam ne gisuñu baay te bëgg nañ baay dégg wax ji goog nag moo tax bëgg baay rek mooy muccal mbooleem buntu yi tëju na julli yeeg woor yeeg parce que luñ doon julli yonent bi julli na ko luñ doon jàng ci alquran bàyyi jàng na ko yaa ngi dégg luñ doon am cofeel ci yonent bi bàyyi am na ko jël na lépp parce que mooy borom jëlul ko def koo moom mooy borom koo xam ne inna ni qablal baraya ubbu suxlul janaani balaa mindee fii man bëgg naa yónnentu mbëggeel ba jeex na di lam amoon la la la nekkoon mbëggeel yëpp bàyyi jël na ko parce que moom mooy jëm ak mbëggeel gi ah jëmmam mbëggeel ba moom la jël na ko jëlal na ko boppam jeex na lan moo fi sës bëgg Cheikh Ibrahima rek képp kott kese jeex na amul leneen ku la ko gën a bëgg nag moo la raw lan may màndargaay mbëggeel almahabatu yaa ngi dégg tuurisul xidma ndax xidma boobu mooy tax nga mën a am sidduku almahabatu wa sidduku tuurisul xidma mbëggeel ak dëggu li koy firndeel mooy liggéey ba tax mu ne inna allazina qadamu nii naalu muraaduhum saadatun wa maalu inna allazina qadamu nii naalu muraaduhum saadatun wa maalu ñi nga xam ne ñoo ngi may liggéeyal bàyyi nee na am nañ seeni càkku téef nit ñaar rek la bëgg di texe ak alal kese am alal ju bari bu dee dugal jàmm loolu la nit loolu la bëgg baye nee na ñi may liggéeyal am nañu ko moo tax euh, ismul al azam ismul al azam dëgg-dëgg mooy liggéeyal bàyyi bëgg baay bëgg naa baay bëgg naa baay te baay lu la dara sa mbëggeel gu du dëgg bu ñu laajtee si baay boo yoroon junni téeméer ngay génni bugguloo baay bu ñu wootee ci baay yaay mujj dem bugguloo baay boo déggee turi baay nga fàtt say nopp bëgguloo baay xam nga lan mooy bëgg baay ci dëgg mooy ñàq ñukki joxe kese amul leneen laaya dafa wax ne in tansurullaha yansurukum su ngeen dimbale yàlla yàlla dimbale leen loolu ko du ta'wil wala dégguloo alxuraan wala duxuloo taalibi baay wala na nekkoo taalibe tijaan waxi dof ngay wax saa yoo ko firee wax waxi dof su ngeen ma dimbalee man yàlla ma dimbale leen yàlla luñ koy dimbale lu mu ñàkk lan la ñàkk koo xam ne boo doxee moo la doxal te ci doxam gi ngay doxee <laughs> kooku kay soxlawul waaye in tansuru awliyaa yi ansurukum wala boog yansurukum su ngeen dimbalee sama sama ñoñ yi man yàlla ñi ma sopp parce que wax na ne awliyaa yi taxta finaa yi awliyaa yi taxta finaa yi man sama gaa yi ci sama ëtt lañ nekk taxta finaa yi mooy comme ni ñu toogee ni digg kër gi mooy cour bale espace familial bi yàlla nee na sama gaa yi foofu laa leen loosé parce que samay gaa yi lañ ku leen jàppale na ma jàppale la ku leen jàppale ma jàppale la man man yàlla waaye nag man a aadaaliyal waliya waliyan faqad aazantuhu bil harb képp koo xam ne noonoo nga sama gaa yooyu deklare naa la guerre déclaré naa la geer ku leen noonoo man yàlla déclaré naa leen geer waaw pourtant nag lu neex a dégg fii ku fi ñëwoon tey jàpp maam Cheikh dóor demaat ñëwaat jàpp soxna jaara dóor bu yàggee rek monsieur Dieng génnee goon bi de de la boo ko fi defatee sa bopp bi laay toj yaa ngi parce que yaa ko déclaré guerre noonu la mel itam yàlla nee na sama gaa yi ci sama ëtt lañ nekk ku leen laal man nga laal moo tax ku masa laal nit yàlla yëg nga ko benn waay ci jamono baay euh, dafa ñëw di di di di di di ndimbal bàyyi yëkkati mbubbam may ko ko mbubb mbubb la ko bàyyi may de xoolal mbubb bàyyi ñëpp bëgg koo am bàyyi yëkkati mbubb ma may ko waaj waaye dina fu toog ne am naa mbubbu Cheikh Ibrahima am naa mbubbu Cheikh am naa mbubbu Cheikh Ibrahima ndekete am na benn noonu bàyyi bu soxla woon loolu ne waa ji jaay ma sa mbubb proposé ko la bari ci koppar kooku jox ko mbub mi booba ndeke waa ji lim bëgg ci mbub mi rek mooy taal loolu rek la bëggoon ci mbub mi taal mbub mi ah waa ji taal mbub mi ñu ñëw ci bàyyi na ko yow sa waa ji nga mayoon mbub ma mu joon jaay mbub ma e mbub ma kam ko jaay taal na ko bàyyi na ko taalul ko de boppam la taal waaji ji dugg biir néegam xamuñ fu safara jóge xamuñ fu safara jóge taal ko ba waa ji jeex tàkk waaw deful dara parce que bàyyi nit yàlla la parce que bàyyi nit yàlla rek la bàyyi masta tàllal ay loxoom ñaanal kenn safaan masul am waaye ku masta doxal safaan sa digganteeg moom gis na maa koy jàngale ci ci ci kii bi ci jawaay rasaayil ci lettre boobu bàyyi bindoon taalibeem mi doon leen assuré naan leen gaa yi may njëbër jot naa ne ñu ngi may njëbër te yéen a ma ko heggee maa ngi leen di assuré di leen dalal leen seen xel man Ibrahima deewaguma ndax ñi mënuñ maa rey danaa dund li sama baay dundoon ci ay at dara duma dal lu may loo xam ne lu leen neex la te yéen xam naa ne samay soppe ngeen da ngeen bëgg ma def rek ci tawfiix te loolu moom mooy li am ku masa ren nak nga masa sunguf bangga nga masa bejeen sa bop nga ren sa bop nga sunguf sama yon nek ci man cheikh ibrahim deng nga moo tax lisaan ah cheikh abdullah wilaan ak bax ak bax xam nga nit ki be am tiofel ci muju am tiofel ci mom ëlbate ko di ko Lulu, lulu, ku ku xàggut yàlla ma bañ la ba àdduna yëpp xam ne dama laa bañ man ma xam ne dama laa bañ yàlla di dox di dox di dox ba bés ñoo ma bëgg la ma ëlbatiku di li mbañal gi ma la bañeew loolu ku xàggut ci yàlla ku jeexut ci yàlla ku xamul yàlla ku nekkul xut bu mënuloo ko Cheikh Abdoulaye Wilane mu baax waaye gis nga bi ko bàyyi boole ci biir famille bi bokk na ci biir famille bi ba am ci biir famille bi loo xam ne nit bëgg na bàyyi ca azal ba tey amoo ko ci ndax lam liggéeyal bàyyi ci jamaanoom amul kenn ku ko liggéey lam defar ci ay doomu aadama kenn defaru ko te bàyyi ñes loo rek la bëggoon pour xamal la ne Cheikh Ibrahima Niass mooy Cheikh Ibrahima Niass dégg nga wax ji bàyyi mooy bàyyi parce que la ñuy def moom lay neex mu sotti la muy def moom lay neex mu sotti waaw lu waaye di def itam bàyyi lay neex mu sotti moo tax am na bakk bu rëy am na sirr bu rëy ku ko jaaree ci moom sa mbir sotti te bàyyi rek la amul leneen yaa ngi dégg wax ji fu may jeexale bàyyi nee na nag ñii da ngay fexe ñu nekk ci sa biir xol bi na yàlla nekk ci biir xol bi na yonent nekk si biir xol bi na Cheikh yaa nekk ci biir xol bi waaye nag yow nga xam ne yaay taalibe baye bi fexel rek baye nek ci bir xol bi su fa baye xese ba nek jeexna waxon nañ fi ne bu baye téwé kenen du téw jeexna bu baye téwé kenen du téw lu jitu baye nak yénente dina téw Cheikh jani na téw kenn ku nek téw téw téw am waye nak après baye baye rek ay téw avant baye sa baye don téw gaay yi ko gaa yi dul xàmmee mais après baye mom c'est sûr que baye téw baye rek ay téw bu téwé kenen du téw te bu teewul kenn du teew da nga wax ji kon nag bàyyi nee na wa kun maa cheyqi dawaaman ba wa kun muhibban waamiqan fa tuflih yow na nga nekk ak sëriñ bi toujours taqoo ak moom boo bëggee di yéeg rek di yéeg yéeg bu amul xab nekkal ak sëriñ bi te boo koy boo nekkee ak moom Bulko bulko bul ko binan sëriñ bi naan kerem bul ko jàppee nit ki naan kerem wala di naan soow déedéet binnem sax war nga ci war nga ci mëna a ci yalla binnem xam ngeen binni xam ngeen binni déggu leen olof moy léego-léegi ni ngay dégg gaay di di di di di di dégager air bi di joggé fofa, hey Allah hein <laughs> lolu sax talib bi daf ci wara a fu sore sore sore sore war na cee mën a dégg dara parce que sëriñ bi buy wax ak yow dafay wax ak yow ci mboolem tajalliyaat yi ci mboolem mazhar yi lay waxee ak yow léegoo léeg mu abbu làmmeñ yàlla bi wax ak yow wala mu abbu jëf yàlla bi jëf ak yow léegoo léeg mu def ko bu yunantu léegoo léeg mu def ko bu Cheikh Tidiane léegoo léeg mu def ko Cheikh Ibrahima yow ne il faut nag yaay yaay intelligent mu tax taalibe dafay intelligent di liir sëriñ bi di ko jàng di ko jàng di ko jàng di ko jàng parce que yenentu boo gisee baay wax ci moom lim mu wax ci moom def koo jàng jàng xëy bu yow itam loolu moo la war loolu na mënta nekk lu may ne da takkoo ak sëriñ bi takkoo nag ci lépp ci zahir ak ci baatin dem ba sëriñ bi bu xalaatee balaa moo noppi nga xam lim xalaat takkoo moo koy andi dem ba li nga bëgg a wax sëriñ bi wax ko far li nga bëgg a def sëriñ bi def ko loolu takkoo moo koy andi ndax mu ngi mu ngi connecté ak yow mais yow boo amul réseau du sotti il faut que yow taalibe bi nga am réseau te pour nga am réseau il faut nga takkoo ak sëriñ bi boo takkoowul ak moom mënuloo am réseau parce que ci réseau bi ngay doxee nga war a doxee mais boo créé sa bopp réseau doo am réseau te doo dem ndax taalibe yi nañu nangoo dox. waaye taalibe yi tey ñàkk xàgg ci yàlla jëmmee na leen ba formante leen dafa yomb ñàkk dox ci yàlla sayru bi dëgërul sa dara dëgërul moo indi da ngay dajeek fi benn waaye rek mu formante la lam lay njëkk a loo mooy sa muqaddam du dara sa sëriñ du dara bàyyi waxul loolu bàyyi waxul loolu baay amul ñaari taalibe benn taalibe la bàyyi am taalibe baay rek moo am taalibe keneen amul ginaaru baay moo nen ñépp min azal ilaa abad ginaaru baay moo nen ñépp benn waaye moo fi wax ne ginaaru kenn nenu ko day wax ginaara baay a ko nen da wax ji waaw ginaaru baay a gorewul walla nga xam ne halkaane moo koy war a dikkal da ngeen wax ji moo tax nag taalibe bi def ci dafa war a dox ci yàlla bul dajee ku lay formanté di la weddiloo sa sëriñ dem nañ sax ba jamono weddituñu sëriñ si mais mu xaddam yi daan ànd ak ba ci baay ci boppam sax am na ay taalibe yoo xamante ne seen parce que yow euh, euh, euh, frigidaire walla frigo bi la seddalal ndox mi ma ñëw jox la ndox mi nga ne ma yaa ma gënal frigo wér nga ndox mu sedd bi maa ko jëlee ci firgo bi firgo bee ko seddal ma indil la ko nga naan ko naan ma yaa gënal frigo bi fii ku fi naan ndox mu neex ba yàlla ko jox ku fi mën a nandalaate itam ba yàlla ko jox yow yow yow mu muqaddam bi soo mënul wax na jërëjëfee Baay Ñas taalibe bi na am fulla wax ba jërëjëfee Baay Ñas te dàq sëriñ bi saxal baay ku maandu noonu lay def ndax fii amul baayu kenn ku fi am dara santal gajaga santal noo mën a sant sa baay amul dara bi baay di am li muy am fa sa baay fu mu nekkoon kenn xamu ko yow sa baay kenn xamu ko tey nga ñëw ci faydu faydu sagal la teral la màggal la foo génn ñu naan bàyyi diw bàyyi diw bàyyi diw nga yaakaar ne nag yow yaa mbir mi waxuñ la bàyyi yow fii ku fi wax bàyyi foofa na wala bàyyi nangam waxuloo bàyyi moom a bàyyi bu mag maa tax ñuy wax bàyyi bu mag baa tax ñuy wax kon il faut que taalibe yi sérieux waaye mu xaddam itamit ñu sérieux wax seen taalibe yi dëgg wan leen yàlla bàyyi bu ko neexoon wan ñu boppam waaye defu ko daf ñu ne ha anta war a yéen a ngi yàllaa ngoog sama yoon nekkatu ci te nag mu teg ci ne ku dox ci yàlla ba sa xam sa niveau xam-xam tolloog sama bos bàyyi ma fii nga dem seeti ku ma ëpp xam-xam kooku bàyyi